bu njiital Pastef jur na xiroog ngaayoo diggante Ousmane Sonko ak waaye taskatu xibaar yi ak diggante Ousmane Sonko ak waaye politique yi ak ñi fare ci société civile ci ñaari fan ñu fàtte mbir yi aju ci gouvernance bu njiitu mi Bassirou Diomaye Faye li gën a am solo ci communication politique bu njiital la parti ak ab gouvernement mooy fësal ay gis-gisam jëm ci ni réew mi war a doxee waaye ku nekk ak nam gisee sorti bu njiital Pastef bile bëri na ñu koy ŋàññ conférence publique bi nga xam ni def na ko daanaka am pola mu amoon ca Grand Théâtre Ousmane Sonko lajj na bi yoon ñu ngi xaar ay tontu jëm ci wàññi seeraay dund gi ñuy menacer presse bi tax coow am. jamono ji waxtaanewu ñu message bi nga xam ni am na ca conférence boobee la waxtaanee moo di ponk yi nga xam ni jur na coow te loolee daanaka mënul ñàkk ñu soppi conférence publique bi aku dàggasante diggante Ousmane Sonko ak presse bi ak waay politique yi. loole ñu ngi ko seetlu ci titre yu journaux yi nga xam ni fës na ci ëllëg si ak waxtaan yi am ci plateau télévision yi ak réseaux sociaux yi nga xam ni xiif nañ ay scandale ak révélation waaye nag mënuñoo tere ak njiital parti jiite itam ab gouvernement mu waxtaan ak ay militant am ci gis-gisam ak li nga xam ni jàpp na ni moo di ay jafe-jafe yu ñu war a fànk presse bi wadd na ci piège bi nga xam ni daanaka moom moo ko tegal boppam di waxtaanee ponk ya jur coow journaliste yi war nañoo xam ni coow li mën a tukkee ci ay sorties médiatiques mën naa indi ay rëkk-rëkk ci ni nga xam ni noonu la ñuy amalee métier journaliste mën nañoo d'accord wala bañ a d'accord ak couple conférencier waaye presse bi li nga xam ni moo di rôlam moo di nettali na mbir yi demee expliquer ko waaye itam respecter li nga xam ni moom moo di liberté d'expression ndaxte nag liberté d'expression ak liberté wu journaliste